Salam wa rahmatullah Mbokki yi TV jinudullah. ni ñu leen ko waxe seen plateau bi nga xamne moy mooy xew-xew eh, bi di alquran nga xamne sang bi Amin moko wote di di di wonya ñepp bayiwul kenn plateau bi nak ba legi ñi ngi ci di dalal ay nit di dalal ku ne ñepp dañu day pour ñu waxal leen lan moy daara ji ñu dalal ku ñu wax soxna Xadi muy kenn ci jigen ni eh, di yaayu daara ci kër gi di jappale lol daara am ci am ci farlu ba nga xam ne daal barakallah ak moroom yi jigéenam yi ñoom nag ñoo nekk ci wàllu organisation bi nga xamante ni ñooy wàllu togg meeg yooyu noonu léegi nag danañ ko laaj ci loolu waaye balaa loolu dañ koy bàyyi moom mu nuyoo yéen ba pare incha allah bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi waa daara ji yëpp di nuyu Oustaz Diouf di ko sargal bu baax. di nuyu kilifa gi Moustapha mm-hmm. di nuyu tamit suñu magu daara mm-hmm. Adama Faye mm-hmm. waaw ñu ngi leen di ziar bu bëri. barakallah di leen ndokkeel bu baax. Mm-hmm. barakallah nee na ñu ngi nuyu ki nga xam ne mooy présidente bi di Adama Faye ñu ngi koy ziar ba moom tamit eh, soxna Khady ñu xuus rek ci waxtaan bi. Mm-hmm. yéen a woote bisu alquran. Mm-hmm. Eh, war ci recevoir kenn ku nekk. ak nit ku nekk. ñu laaj leen naka ngeen waajale seen bis boobu ci wàllu organisation bi nga xam ne mooy wàllum togg meeg yooyu naka ngeen ko waajalee. waa ñu ngi alxuraan. Euh, di woo tamit suñu mbokku jigéen ñëpp. Mm-hmm. ñu ñëw dooleel ñu ci bés bi. Mm-hmm. Mm-hmm. jàppale ñu ci bés bi surtout soxna yi nga xamante ni nii seen borom kër yi. jaar nañ ci daara ji. ba mokkal fi ba génn. ñu ngi leen di woo si liggéey bi. ñu nekk tamit ñoom soxna yu jàmbaar. ñi nga xamante ni ni umpante wuñu. ñu ngi góorgóorlu pour daara ji bésu conférence ba lépp mën a taaru. ñu ngi ci diisoo di ci waxtaan. réeroo ci benn yoon. wallaay ndeysaan. waaw mm-hmm. bëgg teel a jublu ci suñu programme waañ bi. teel mm-hmm. cee jublu. dëgg la yàlla jàppal nañu lépp mu jàppandi. mu teel a sotti. incha allah ba gan yi a jot ci xéewal gi. dëgg la incha allah waaw ñu ngi ci ñu ngi ci taxaw bu baax a baax. dëgg la incha allah incha allah ndax soxla ngeen dimbal ci wàllu waañ bi waaw waaw soxla nañ dimbal si wàllu waañ bi bu baax comme yan ak gën a bëgg. Ah, wàllu waañ bi daal soxla nañ ci ndimbal moom. dëgg la waaw soxla nañ ci ndimbal. bu baax a baax yaay yi ñu xamante ni ñoo ñu gën a taxaw ci kii nekk ci yoon daal. dëgg la incha allah ñu jàpp nañu parce que waañ bi ay tout tànk ñoo si ëpp. ay xale si ëpp. incha allah waaw Adama Faye daal moo ñu fa nekkal comme mag. Uh-huh. di ñu jàppale nag di ñu wax nii ngeen di def nii ngeen di def waaw moom fii ñu toog nii moo fi waroon a toog mais dafa xaw a jàpp moo tax waaw ci kàddoom nag la ñuy waxee ak kàddu soxna yi nga xamante ni nii ñoo bokk wala te seen borom kër yi newoon fi ñu booloo bëgg a jàppale seen borom kër yi ba tax ñu ñu def mbooloo mhm. nekk ci groupe di waxtaan jël seen alal seen xalaat bu sell yëpp bëgg ko jëfandikoo ci conférence bi pour taaral bés bi incha allah yéen ñu ne da ngeen a créé benn membre boo xam ne jigéen ñi ñoo ko ñoo ko créé mhm. euh, loolu ku ci bëgg bokk wala koo xam ne ku bëgg a indi ndimbalal ci moom bëgg na bëgg ko jaarli ci fan lay jaar ba ñëw waa groupe bi daara ji lañ ko tuddee mhm. groupe bu daara daara ji waaw léegi soxna bu ci bëgg a bokk mhm. ku doomam ne ci daara ji wala ku fa ku sa borom kër ne woon te ñun xamuñu la xëy na sa borom kër xamante naa góor yàlla yi fi ne boo jotee si wax ji nga bëggee ñëw ci daara ji soo jokkoo ak soxna Faali wala soxna Aysa mhm. wala soxna Xadijatu mhm. wala Adama Faye mhm. dinañ la orienté incha allah ba yow it ñi ñi ma fi lim ni ñuy defee seen doole ak seen xel mu sell ci ci yëf yi ci daara ji dëgg la yow nga mën ko motalee noonu incha allah waaw ndax lépp liggéey ndax lépp daara jee ñu ñor dëgg la incha allah alxuraan ñu ñor dëgg la incha allah loolu ñu def ko suñuy yitte bopp dëgg la incha allah waaw di ñaan <coughs> yàlla may ñu si ndam bu baax a baax a baax incha allah amiin yaa rabbi ku leen bëgg a jot jot jot ci wàllu membre boobu amul numéro téléphone wala yéen ñu ko mën a jaaral mm-hmm. ku ñu bëgg jot <coughs> su fekkee woo ma man mm-hmm. mën na ma jot mm-hmm numéro bi ci 77. 754. 80 45. wala mu jot Adama Faye tamit. Hmm. Hmm. numéro Adama Faye. <coughs> Adama ma xool numéro Adama Faye. mbokki seetaan TV Junu Dollar lii moo nekk seen eh, émission plateau bi nga xam lañ defar spécial eh, ànd ak yéen ci xew-xewu daara ji ndax bisu daara ji la bisu la. bis nag mantu mantu gën a màgg bisu alquran

waa di leen sant di leen ñaanal yokkute mm-hmm. yàlla may ñu bés bi ñu dëgmal mm-hmm. ñu àggali ak suñu sago mm-hmm. yàlla may ñu si ndam si barke alxuraan. incha allah ñu am si lu kawe kawe suñu njort. incha allah yàlla dooleel ñu kàttanal lu ba ni ñu tëralee programme bi. Mm-hmm. ñu matalee ko noonu. si barke alxuraan. waaw ñu ngi woo ñëpp nag. képp ku dégg suñu kàddu gi rek. Mm-hmm. ñu ngi lay woo. ndax bu ñu limee dinañ juum. Mm-hmm. waaye ku jot ci kàddu gi rek. xamal ni ñu lay woo si bésu alxuraan. loo ci def doo ko rëccu. balu tàng si la rek boo dóoree. si yow lay ñëwaat. defaloo ko soxna Xadi defaloo ko sëñ bi sa bopp nga ko defal li si waaye def rek sa bopp nga ko defal ba tax na ñu ngi woo ñëpp ñu wuy suñu si bés bi incha allah dimanche la la 14 janvier incha allah ñu ngi si woo ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal jërëjëf soxna Xadi ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di la wax na la ñu ngi lay kontaan am mbégte ci wuyu si gi ngi wuyu si parce que xam nga diis nga waaye bàyyi nga lépp wuyu si ñi ci bis bi kon ñu ngi ñaanal jàmm bu baax a baax mbokk yi seetaan TV ñu daal duñ dem mukk dañuy nekk ak ñu ngi leen di waral dañuy indiwaat keneen bu defee ñu ànd ak moom ci bis bi bismillah